salaamaaleykum internet bpactu point com maa ngi leen di siyaare waat bu baax a baax ñu ngi si Plaza conférence de presse Viviane mais dañu fekk ki nga xamante ni mooy Amina Poté l'animatrice la plus stylée l'animatrice bi nga xamante ne ni bi mu ñëwee dafa indi osé ak aisé bari na ay coow yoo xamante ne ñu ngi koy gis ci réew mi diggante moom ak jëkkëram mu nekk loo xamante ne ni bari na ay tuuma ñu ciy teg dañuy dem ba ci biir ma fekk ko foofu ñu waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne ni Amina Poté mi ngi ci mi ngi ci woon démb ak kaay la ñu dem. leen di jox seen euh, euh, wàccuwaay comme ni ko sénégalais yi di waxee saa su ne. Ah, balaa maa ñëw ci album Viviane bi nga téye muy album bu am solo ci wàllu musique waxuma sax si carrière mais ci wàllu musique dama ñëw ci Amina Poté ci sa ay début ñu bari dañu wax naan Amina Poté Amina Poté nga ñëw indi sa style bopp. ñëw mm-hmm. indi rythme diis. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ne ni slogan la boo xamante ne ni c'est carrément Amina Poté. Mm-hmm. lan moo waraloon loolu. waa li ko waral mooy xam naa lu doon nelaw ci man rek la ba pare wax dëgg fa yàlla euh, sénégalais yi noomel ñoom la ndax tey booy génn ci télé yi te bëgguñu la doo dem gisoo kenn kuñ fi mës a saboote mu yegg si fii ma yegg si macha allah moo tax sénégalais yi rek euh, laay delloo njukkal te xam ne ñoom dama yegg si ñu bëgg ma téye ma la may def neex leen looloo tax mu toll fii moo tax dama leen koy delloo rek ñoom la. nga jékki-jékki doon ko décentraliser di wàccal sa bopp ci terrain bi di def say émission jékki nga am plateau biir TFM. indi bongo man ci biir plateau bi mu nekk loo xamante ne xaaruñu ko woon biir TFM parce que dañoo woon TFM télé bu sérieux la Amina Poté am audace indi fa ay bongo man parce que àddina euh, doomu aadama ñëpp ñoo yem euh, li tax ma indi bongomaan yi euh, dañoo nekk ñoo xamante ni seen métier dafa metti ndax métier tëgg la ma gis ni dañ leen isolé woon bu njëkk bongomaan yi dañ leen isolé woon ndax lan dañ naan dañuy dañ naan dañuy 15 dañuy tux lu bon te loolu amul beddee ma xeex loolu man chaque jour euh, ci injustice lay dox euh, mu metti woon ma nag moo tax ma daal di essayer pour xëcc leen ci sama wet ba macha li ma ci bëggoon bu lépp amut it am na lu ci joto a sotti ndax léegi boole nañ leen ci ci ci doomu aadama yi te macha kenn gënu leen kenn gënu leen a baax ndax ay kilifa lañ responsable am njaboot kon ñoom tamit ci jur gi lañ. jur gi lañu bu ñu yeggal ci carrière bi duñu fi jóge Amina Poté ak TFM. tey maa nga fa suba nekkuma fa nit ñi di wax coow li bari lan moo ko doon waral Amina Poté moom moo doon bëgg a def buzz wala nit ñi nekkoon biir TFM ñoom ñoo doon jéem a bundu xatal Amina Poté parce que gis na fa nga tourné sa émission génn sax sa tànk damm ndog la dëgg la mais lan moo waraloon yooyu euh, yooyu noonu waxoon naa ci waxaat ci waxaat ci tànk yu damm ak feebar ndogalu suñ borom la nit mënalul jaamam dara mënalul moroomu nitam dara ndax yàlla moo ñu moom ñun ay jaam lañ euh, beneen affaire bi chaque jour absenté euh, nit chaque jour da ngay am ay affaire yoo xam ne da nga ciy nekk parce que mënoo chaque jour di présent dafa am yoo xam ne dafa important ci doomu aadama muy sa yëfu personnel danga nga ciy nekk ndax ku ci nekk bëgg na tey macha allah euh, comme ni ko Youssou Ndour di waxee takku liggéey ku ci nekk bëgg nga fi nga nekk nga jóge fa dem feneen te loolu dafa ànd ak gëstu di dugg di génn loolu rek la mais y a rien. y a tout amul dara loo xamante ne nii mi ngi ci biir ñu jékki-jékki ñu ne am Amina Poté dañu ko marabouté dañu ko liggéey mu jékki-jékki nga def sa retour biir TFM nga dañoo changé sa voix. non yooyu ay faux problème la dama ne la man sama interview yëpp yu ma mës a def yëpp boo ko seetloo euh, li ma ciy wax mooy euh, yàlla moo fi nekk franchement li dama ci wax wax ci bugguma kuy tuumaal nit parce que yàlla moo fi nekk yàlla mooy faagaagal yàllaay dundal yàllaay rey yàllaay maye mooy xañe kon loolu do wax naa ci waxati waxati ci franchement. Amina Poté am borom kër. ñu dawal tuuti ñu ne divorcé na parce que borom këram da koo trompé. sama vie privée la. mais leeral parce que dafa am benn baaraamu tuuma boo xamante ne ni mi ngi ci yow entre yow ak sa borom kër parce que wax ji bari na ci réew wax ji koom sa borom kër trompeur. sama borom kër sama borom kër woon kooku mënul nekk trompeur xam naa euh, nit ñi euh, dañu desee comprendre lu baree bari. Euh, wax naa ko sànq sëy affaire yàlla la te lii affaire vie privée la moom dafa jur sama doom te bëgguma ëllëg sama doom yi màgg ñu leen di wax dara lu leen metti man duma xool ku bon di ànd ak moom du ma dugg ci ku bon moo tax bu bonoon euh, te ma am envie ànd ak moom damay ànd ak moom bàyyi ko mu jàll kon du ma am ak moom doom mais dama am ak moom doom muy nit bu yaru nit bu baax nit bu jàpp ñàmburam nit ñi nag li ñuy wax muy man di moom duñ ko déglu parce que divorce am na mais ay gaayen lañu kooku sama frère la parce que bëri na fu mu ma jëlee waaye man it bëri na fu ma ko jëlee ku ci nekk am na loo def ci sa morom moo tax loolu affaire vie privée nit la soxlawul nit ñi di ci dugg chaque jour boobu ba tey journaliste yaa ngi may woo mais du ma exposé doomu jàmbur ci internet bi amul njëriñ parce que ba muy neex ànd nañ kon buy naqar yi tamit ñu tàqali ko bu mu ñaaw kooku nit ku baax la barki Serigne Saliou Mbacke am doomam bëgg ko teg ci wetam di dund ak moom ba keroog mu koy maye kon lu ñaaw bu ko kenn teg ci daru nit yaa ngi dégg wax ji nag maa ngi koy déggee fu ne lu ne laay dégg que trompeur la daf ma trompé fii kuñ trompé dalaa neex diggante bi yàlla moo ko jeexal mën na am keneen ku ma gën yàlla may ma keneen ku ko gën te maa ngi ko koy ñaanal mais nañ arrêté wax yu ñaaw yu ñuy teg si daram ndax moom dafa am ay mbokk am famille ba pare euh, li important mooy dafa yor doom bu tuuti bu am 6 mois kon nañ arrêté wax yu ñaaw yi franchement. su ma la déggee bu baax a baax seetal nga ko wicc ci wax ji ñaaw yi nga xamante ne ñu ngi koy wax. man bu ma sañoon du ma divorcé ak moom moom it xam naa ne bu sañoon du ñu divorcé mais gis nga mbiru yàlla nit ñi ñooy dof doflu mais nit ñi yàlla mooy boole lu ko neex yàlla bu ko neexoon du ñu tàqalikoo day faat kenn day daf may rey mbala mu rey ko mais yooyu yëpp divorce moo ko gën ci comprends mais nañ bàyyi jàmbur te manit ñu may ma jàmm te xam ne euh, amul lenn lu fi am loo xam ne amutoon ci àddina waaw fekk ma ko ci lu ñaaw moom it pareil macha allah fulla laa ko woon ba ni ma sëyeeg moom ba ni ñu divorcé kon dara ñaawul franchement a ñaawlu balaa ñoo jàll ci album bi lan mooy secret Amina Poté chaque jour Amina Poté mi ngi gën a mignon mi ngi gën a nekk xale lan la da ngay sport euh, sama secret nag mooy euh, dama jàppanteeg nit ñu baax ñi ba pare di nelaw ba doyal euh, du ma tuux du ma naan damay nelaw ba doyal tu comprends ba pare macha allah lu ma am jël lu ma ñàkk muñ ko man aw ma folie tu comprends ba pare nag jàppanteeg nit ñu baax ñi comme ku ci mel ni ameel Beauté ah ku ci mel ne waa benn ñoo ñu ma jàppanteel moo tax chaque jour rafetuma sax mais bu may génn macha allah dañ may toppatoo ak ñoom moo duggee héritage loolu rek mooy sama secret. waaw solo du ma tuux ñu seetlu jamono ji xale yu jigéen ñi la plupart les jet setteuses coow li dafa bari ci seen biir bu nit duggee ci buumu sëy sax ñu xool naka lañ ko koy yàqalee Amina en tant que porteur de voix en tant que nit boo xamante ne ni nit la ku bëgg réewam lan ngay wax ci loolu. Euh, loolu ñoom seen vie la franchement parce que man mënu ma dugg ci vie wu jàmbur parce que boo sanguwul ba set mënoo digle càngaay parce que erreur yi nekk ci man peut-être bari na nit ñi xam kook bañ koo xam kon mënu ma conseiller kenn li ma leen di ñaanal mooy yal na leen yàlla defal jàmm relation yi yàqu woon yëpp muy entre copine ak suñ borom defal leen jàmm ndax lépp liggéeyu seytaane dong la yàlla na leen yàlla di jàmmal rek. sa relation ak Viviane nekk na relation bu yàgg de. kooku sama yaay la boo xamante ne moom moo ma bëggal boppam uufal ma boppam sama lépp mi ngi ci lu ma neex neex na ko lu ma naqari naqari na ko moo tax lu mu ne dama ciy nekk dama koy ñaanal yàlla may ko ndam ci métier bi muy liggéey ba pare macha allah def doomam yi ñu màgg bokk ci kilifa réew mi bañ xam ni euh, euh, euh, guerrière la maa ngi lay jaajëfal di am mbégte ak contentement parce que lu ma yàgg bëgg la ñu jàkkaarloo man ak yow te dinañ ko gën a dinañ ko gën a yaatal incha allah incha allah naa jërëjëf ci ñi nga xamante ne ñooy seetaan seen sit bi di leen wax jàpp leen bañ a bàyyi man nag maa ngi nii poté saaliw seen poté lu ngeen ma wax bëgg naa lu ngeen ma def bëgg naa dinaa góorlu ba seen bët du ngeen ko teg ci lenn loo xamante ne ëllëg dinaa manqué ci seen kanam love you commentaire yi ñi cliqué j'aime je t'aime beaucoup ñi nga xam ne cliqué wuñ j'aime nag yàlla leen yàlla may xolu accepté ko bay bës ñoo am jot rek. j'aime. mais j'ai vu ici Bakhaw Dabere <laughs> un homme intègre capable de diriger le musique sénégalais. waaye gis naa fi sama jigéen sama xarit. muy kan Amina Poté. Poté mu Serigne Saliou. ki tax bongo am valeur ci àdduna. waaw. ki tax loo xewle ci àdduna rek wooñu. Poté ngi noonu. mu toog ak waa xaritam akan macha allah yow Poté lu mën a wax doyul waxal la ca kaw yow bu ñu joxee Bongo cër fii ci mi ah dina yóbbu fu ne waaw